wala lu ëpp ñettiweer weer wala kii yu ne da koy daaneel parce que kenn ku nekk lu ëpp ci nit ñi bokk ku ne yaa ngeeg tawat soo xam ne sa tawat chronique la soo xam ne danga koy sooxaale nga xam ko xam ni mu lay daaneele muy sa tawat nga xam ko bu baax man maa ko daan jëndal garab yi bu ko masaadal man lay liggéeyal parce que dama am benn entreprise fii bu mayor boo xam ne dafay employé vingt personnes bi biiram di metti ci guddi gi damay fay sama téléphone bu may tëdd ci lañ ma jotuñu ma mu ànd ak magam bu jigéen ak benn jarbaatam ñu yóbbu ko ci hôpital bi ñu jox koy garab sampal ko ay butéel dalal ko ba ba mu dal mu fanaan fa ba xëy suba ñu woo ma téléphone ma dem fa ñu ne ma mënoo koo gis parce que dañ koo tëj ci biir néeg bi ma gis jarbaatam bi mu ne ma métitu biir ba ko daan dalkat moo ko dal après ci lañ ko xool bi ko fajee ba mu tane ñu tase ko ne dafa am dafa positif maanaam dafa am feebar bi ma laaj leen symptômes yi nga xam ne ku feebar bi dal nu mu lay dikkee ñu ne ma sa bopp day metti sa yaram tàng sa put di metti ngay saqat ma laaj ko mu ne ma sëñ bi mu ne ma mu ne ma ñeent yi daal benn daluma ci te feebaru biir bi ma dal xam nga ko xam naa ko yàlla xam na ko kon loolu point d'interrogation la tonton ma ngi ci ron ngege yi ku nekk dama lay bàyyi rek nga yóbbu ko ba sa kër nga analyser léegi bi ñëwee sama kër ñu ne ah comme sa liggéeykat la nu ngeen jaxasoo ma ne ko day ñëw sama appartement fa la bii mook sama gone naanandoo benn pot ak beneen euh, xale bu dëkk ci kër gi boo xam ne ñoo bokk benn mat laa bu ndaw di ci tëddandoo léegi ñu ne dañ leen di xool ñu defal leen prélèvement ñun ñëpp ba mën mii dama ne ko danga may defaral ñi nekk ci société bi aussi ñu defaral leen bi ñu demee ci guddi gi mu woo ma ndax li ma gën a jaaxal ci loolu avant euh, kii bi daf maa laaj na ma kii feebar kan moo ko gënoon a jege am benn xale bu tëb ne ko ku nuy wax làmbaay la làmbaay jóg taxaw ne ko yow mi yaa ma positif loo ci laa xam ne ñii dañuy làmbatu ñii li ñu nekk am na lu baree baree bari loo xam ne ay tappale la te mu ngi te bi mu demee ni mu ko waxee la dañoo ñëwaat ne ko làmbaay moo positif làmbaay moom biñ ko jëlee yóbbu am na ku mu bokkal néeg bokk ak moom lal làmbaay moom bu fekkee feebar bi ni ñu koy waxee siin noonu la lu ko dal dal ma dal ak sama njaboot parce que ñoo bokk benn pot bu ñuy naanee bokkandoo reer mm. wallahi ko kahaba mm. sama taraayu bammel mm. masque bi fi làmbaay bàyyi bi mu demee sama doom ji tudd sëñ Saaliw takk na masque bi ci bis bi te boobaak léegi bu doon ci biir 15 14 jours yi nga wax sax dinañ ne waa dina feebar xëy na comme affaire bi 14 jours la. ci bis bi mu ko fi bàyyee ñu ne ko da ngaa corona mu dem wuyu ji ci la ko tak te feebar bi niñ ko gisee siin nga xam ne bu ngeen jàkkaarloo di wax rek mu dugg la wala mu tisooli jàpp ci bloqué koo bokkal dëkk bokk ak moom di lekk ak naan bokk benn pot bu ñu naanee sa doom takk masque bi loolu day mbir moo xam ne faw dañ koy souligner beneen affaire bi mooy bi ñu ñëwee sama emploi yi nga xam ne dañ may liggéeyal ñu fi Saalum lañ dëkk bi ñu leen xoolee ba bere leen ne leen nag yéen amu leen droit genn fii ak 14 jours ñaata ngeen di am par jour ñu wax leen ko mu ne leen lu ngeen di lekk ñu wax leen ko ñu ne leen bu leen génn kër gi toog nañ trois jours yoo xam ne teguñ fa seen tànk te dañoo woote force Covid du ñu ay dof képp koo xam ne dañ laa quarantaine sa biir kër milliards yooyu ñu woote am na loo xam ne dañ ko caa xob bi dugal ko ci biir dëkk bi képp kuñ quarantaine am na lu ñu la war a jox pour nga koy dunde di ko lekke di ko naane parce que mënoo tëj nit mala sax boo ko tegee mu faatu ki la ne da ngay toog fii 14 jours boo génnee da ngay wàllaate ba pare indil la lekk indil la naan gardew la. kooku kay xam nga ne la muy wax ah, du dëgg parce que bu doon dëgg muy dëgg goo xam ne ñoom gëm nañ ko bu ñu la tëjee kat dinañ la too di la indil lekk di la indil naan ba pare ta wut eh, elkaati mu taxaw ci buntu ba di la garder waaye kele ne da ngaa feebar te boo génnee wàllaate te wan la ginnaaw war laa indil lekk indil la ko kooka loolu la wax du dëgg. kore corona nag am naag amut wala wax la waaye li fii ci dëkk bi ñu koy tourné ba koy yorub Jakarta taxaw ci dëkk ñu ne la Touba nga jógee nga ne waaw ñu ne la positif du loolu moom man maa ko wax Moustapha Diouf Lambaye maa ko wax maa ko assumé dara du ci dëgg lépp ay tappale la benn aspect daal laa ci gis boo xam ne moom bomb bomb la woon boo xam ne bomb social la mënul woon a ñàkk muy ñu tijji jàkka yi te buñ ko tijji wutoon it ngaay dina fi gën a ñaaw mënul woon a ñàkk mais nag jëlee affaire bi vingt heures yóbbu ko vingt et loolu amul solo ku mën a tëdd vingt et une mën ngaa tëdd vingt heures li am solo mooy nit ñaa ngi ci seen biir kër yi lekkatuñ naanatuñ lan yoroon jeex na da ngay toog fii gor gu sol lu rafet nga ne ko jàkk xam ne kii liggéeykat la mës na yalwaan ñëw ba ci yow mu dee la ne la boo ma joxut dara kër ga bu ñu demee du ndogu la sëñ Moussa Ka doon wax naan ñi gor ñaa ngi xaaj seen i saas ñi daan joxee ngi laaj waaye foofu la ñu toll nit ñi sonn nan te leen doo nga mën a décanter situation bi mooy ñu ubbi dem beeg dikk bi te jël ay matuwaay seeral paas yi ba pare fexe di yeb lu yem nit ñiy dem Touba gi produit man dama am benn entreprise boo xam ne produit yi muy jaay mi ngi koy dugal ci biir marché bi entreprise boobu dama koo tëj te xam nga marché bi tëjul te entreprise bi tëj naa ko kon mooy loolu li ma doon dugal ci marché bi ñi nekk ci ginnaaw dëkk yi ci dëkk dëkkaan yi ñoo ko daan jënd parce que am boo ne tijji nañ lu may waaye benn dëkk du fekkeeti beneen loolu amul njariñ parce que dëkk ba produit ba ñu yor di ko di ko di ko génne beneen dëkk ba moo koy soxla beneen dëkk ba lam yor dëkk bi moo koy soxla faaw dëkk yi di essence wu comme ñu ngi yóbbu marchandise yi nañu yolomal yëf ubbi transport bi tuuti te it jël ay ay ay ay ay ay jël ay ay matuwaay ci loolu parce que nag loo ubbi jàkka yi moom mënul woon a ñàkk def nañ ko ñoo ngi ko ciy gërëm tey li ma gën a jaaxal mooy cuune gu mat sëkk laa ci gis parce que comme feebar baa ngi yokk ba pare ñu tijji jàkka yi ba muy doon vingt ki trois lañ tëjoon jàkka yi mu dem ba egg ay mille yu topp ñu tijji jàkka yi lool point de interrogation la ñaara mën a am ay tappale am ci wala amuñ vision bi ñu koy tëj amuñu xam-xam te it fekk tijjiwun marché yi poñe mi ñu am ñoom ba xëx dinañ am mu ko raw parce que nit ñi sonn nañu nañu bàyyi politique bin ci lal hôpital bi man fii laa dëkk da daan xëy nit ñi rang ñaraan feebar a ngi feebar mais ñimeetu ñoo ñëw ci hôpital bi parce que ku fi ñëw ñooy la positif keroog damaa dajeek ab maire fii ci pharmacie bi mmh. mu ne nañ ko xoolal tension xam nga kooku xam na li ko dal xaaju boppam di metti xam na li ko dal mu ñëw ne nan ko xoolal médecin bi kii bi euh, kii jaay garab yi pharmacien bi xool ko ba pare di ko génneel garab bi far téléphone am sonné maire bi daa génn daw ne wuyaa yooyu ma ngay woo waa waa kii waa waa corona bi nit ñi dee ci kër yi seen feebar yi ñimeetu ñoo dem hôpital parce que boo demee boo yoree feebar bu ndaw ñu faj la ba pare jël ko corona te ci ginnaaw feebar boobu ne la da nga positif yenu la yóbbu liñ ci yàq ci ay deru nit yàq ci bopp parce que corona fu mu dugg dañuy dawante heureusement fii day famille bu mag boo xam ne ay murit lañu ay donga lañu ñun bu kenn doon tàkk ba dee dinañu maas ñun ñëpp tàkkaa lañu heureusement mais am na ci famille ndaw yoo xam ne ba nii duñ tuddante parce que góor soo xam ne xam nga ne dara dalu la ñu jabolise la ba say mbokk di la daw soo jógee ca loola boo amutum xel dëgg di nga noonu ak moom te ñi lay daw defuñu ko seen wér-gu-yaram lañ bëgg vraiment daal lii tappale yi ci nekk daal nañ ko ci génne bu dee fukk daal juróom-ñeent yëpp tappale la benn ci dëgg te dëgg ba man gisuma ko ndax néeg bi bu nee la xaalisang fi ay saako yu xaalis yu fees dell nga ubbi néeg bi dugg ci di yër di yër ba egg ci yëru carondal ga te gisagoo dara bu la neexee taxaw ne xaalis néewu fi dan may nax corona bi nag nii la demee ampleur bii ñu ko may daal ak dëkk bi nii ñu koy waxee nga xam ne ku génn corona nga te ñi fi des gën a wér ñi ci des sama emploi bi mu eggee moo ko ne ko ah lu lay miti kooku kenn ki kiñ na da ko contaminé kooku yaramam mës sa tàng mës sa dara dana ma sëñ bi mu ne ma ah mu ne ma camion ciment boo ma ko tegaloon fii ma wàcce ko par benn entraînement réer réer bu rëy doog a tëdd nga taxaw jël fi xam nga Touba sax moom euh, am na lu bari lu ñuy sóor mais fu mel ni dakaar man ñama ma fa xam ñu ne leen dañoo am feebar da ngay feebar force amul dara daluma euh, aide alimentaire bi tamit mënu cee ñàkk wax man 28 laa dëkk nekk fii di def politique mën na maa waat ci yàlla ne kenn gisut ko am ceeb wala nga gis ko am ceeb. suñu bañee daal nit ñi dee wala bu liy jàllee nit ñi sànq ko fur nañu tijji dem beeg dikk bi te it organiser ko parce que loolu dong mooy solution ah tijji dem beeg dikk bi nit ñi mën a dem mën a dikk Touba gii li fi nekk ci marchandise Touba amuñu usine amuñu géej amuñu dara marché occas lañu am soo tëjee marché occas bi rey nga leen te marché occas bi li muy jaay du waa Touba rek ñoo koy jënd li ëpp day génn parce que heure bi daa nga fekk dugg marché bi gis camion yi gaare di jënd marchandise mi di ko yóbbu ci àll bi ay ñii bi ay Kaffrine ay dëkk dëkkaan yu ndaw yi wër fii lenn moo ci jaar yoon loo xam ne mënutoon a ñàkk am mooy jàkka yi waaye bu jàkka yi jàllee ci am solo gi am solo am solo gi am solo gi nga xam ne tijji jàkka yi waral na ko leneen lu fi amaat solo loo xam ne mënta ñàkk mooy dem beeg dikk bi ñu tijji ko te organiser ko mhm. buñ ko deful moom maanaam risque bi ma dégg ñu naan ay Afrique dinañ ko dee man gëw ma ne corona bee leen koy rey parce que corona bi daa indi bagage xiif boo ko defee war a lekk te lekkoo da dee. même boo deewul am na xiif boo xam ne bu la dalee feebar yoo xam ne bu ñu xasee déclenché dootum tëddaat. Mhm. àllaaxira lañ ànd ak yow. nit ñi dañ doon génn naan nañu bàyyi nit ñi ñuy tiital waaye Touba fii moom kenn mënatu fee tiital kenn parce que ay fen nag nit mënoo dëkk ci di ko fen nit mënoo dëkk ci di ko nax nit ñi nag dem nañ ba ximuliku xam nañ ne lii fi ne ñu koy wëlbati suñu biir dañ noo bëgg a toroxal bëgg ñoo tarax toroxal bëgg noo jaxaseeg suñu yoon wii bëgg ñoo jaxaseeg suñu kilifa diine yii loolu rek lañ ci bëggoon waaye ñun dem nañ ba comprendre lépp bu dee ku fi jógee boo demee fa nga jëm positif te ñu ngi fiy bàyyi dara dalu leen kenn mënta gis ku fi tëdd kenn mënta gis ku fi dara dal gëm nañ ne ñun daal li fi nekk ñu koy wëlbati ci suñu biir politique bu mat sëkk moo ci nekk ak tappale yu mat sëkk